على من علي ولا سوسدي Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasul barke ko selki yanno ko yalla yoki ngiram ak lerto musul ko wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki julit yi mbokki ñi ngi leen di nuyu ta di leen ziyaara fii ci ëttu soxna yu baax yi di fas yéene waat ak yéen ci suñ jataay bi tudd seetantal ci kiimtaani suñ boroom yi ngir waaru si moom waaye seetantal ci xéewalam yi ngir sant ko booba léegi ñuy seetantal si doomu aadama ni ko suñ borom binde ak ni mu yéemee waaye ni mu ko gënalee ci mboolem yeneen bindeef yi ci des yépp ba egsi ci doomu aadama ni ko suñ borom fonke tamit ba wutal ko ay kilifa waaye di ko def moom it muy kilifa waaye ni nga kilifa yi ca gën a foor te tey kilifa yi nga xam ne ñooy jiitu ci kilifa yi mooy yonant yi ak wàll yi ak nit yàlla yi ñu doon seetantal ba egsi foofu tey nag ñuy seetantal ci ci suñ ci doomu aadama ni ko suñ borom defee muy xalifaam ci kaw suuf na xam ne daa niroo lool ak bee muy muy kilifa na xam ne dañuy wax ne suñ borom dafa def doomu aadama muy xalifaam ci kaw suuf te loolu lépp rek buñ dee seetantal dañ koy gis waaye xalifa yi ñi ci jiitu tamit di yonante yi ak wàll yi ak nit yàlla yi ñooñu ñooy njiit yi àdduna ak àllaaxira ndax ñooñu ñooy ñooy xalifa yi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy taxawee ñooy taxaw taxawaayu woo nit ñëpp ci baatub laa ilaha illallah seen mission bi ñuy njëkk di def ñoom toujours rek booy seetantal da nga gis ne rek woo nit ñi ci baatub laa ilaha illallah la ñu njëkk a def mooy xamal nit ñi ne yàlla rek kay yàlla te kenn du yàlla ku yàlla naka noonu tamit ñooy ñi nga xamante ne dañuy wóor nit ñi ci muslim def nit ñi nit ñi nekk ay muslim di wóor ci nit ñi ñu jébbal yàlla suñ borom subhaanahu wa taala seen bopp wante tamit nekk ñoo xamante tamit dañuy dañuy woot nit ñi ci jëfe ndigali suñ borom yi ak bàyyi ay tereem ba tax na njiit yooyu noonu nga xam ne ñoo fi ñoo fi nekk xalifa yi suñ borom ci kaw suuf mu yenante yi da ngay gis na suñ borom day def ci ñoom leer yu bari daal di leen jox ay téere am ñoo xam ne jox na leen ci ay téere jox leen sariya ñu boole ko ak aqiqa ñëw di si jubbanti nit ñi di leen teg yoonu siratal mustaqima di leen yóbbu ci suñ borom subhanahu wa taala ñooñu ñooy yi nga xamante ne ñooy njiit yi nga xamante ne bi ñoom ñoom ñooy xalifa yi nga xam ne ñooy xalifa suñ borom ci kaw suuf waaye comme suñ borom dafa yaatu comme ni ma ko waxoon bee passé dafa kawe lool te dafa màgg suñ borom ay mbiram dafay bari dafay dafay dafay dafay yaatu lool ba kenn ku si nekk rek daf la ciy sédd nga xamante ne kenn ku si nekk rek am nga si sa wàll woo xamante ne yaa ngi taxaw taxawaay boobu ñooñu ñooñu noonu ñooy xalifa yi nga xamante ne bii ñoo ñoo jiitu waaye doomu aadama ba tey tey ñuy seetantal ñi nga xamante ne jot nañ koo seetantal ci jëmmam ba nga xamante ne bii ni ko suñ borom defee xalifaam ci kaw suuf danga koy gis ba léegi sa ci jëmmi doomu aadama ndax suñ borom dafa bindu doomu aadama mu wuute ak mboolem lu dul moom ndax mboolem bindee gi fi des yi ci ne ci kaw suuf dañ leen di gis yépp rek muy bàyyi ma yin fi nekkal moo xam bàyyi ma yile géej géeg jéeri jéeg mboolem yiñ fi gis daal yépp rek na xam jaami suñ borom yi suñ borom teg te toujours rek bu ñuy ñëw ñuy indi exemple ci bàyyi ma yi ndax ñoom it yor bakkan ni doomu aadama yi dunde rek lañuy dunde ñoom tamit di di di di juddu di faatu di xiif di mar di yëg siyat di yëg tàngaay wante li ko wuteeg doomu aadama rek li ci ëpp moo di am xel nga xamante ne xel mi suñ borom jox doomu aadama joxu ko bàyyi ma ba tey rek na gis ne suñ borom dafa def doomu aadama muy xalifaam ci kaw suus jox ko xel mu mat sëkk noo xamante ne bàyyi ma yi amuñu ko ndax bàyyi ma yi ñoom lekk ak naan ak nelaw doomu lañu la ñuy lijjanti doomu aadama nag bëri na yoo xam ne mi ngi koy def ci kaw suuf ci am xelam kon kon moom la suñ borom jiital ci kaw suuf waaye ni ko suñ borom bindee def ko mu am ñaari tànk amal saxal ko muy mu am ñaari loxo bàyyi mi yëpp rek buñ dee seetantal dañuy gis ne ñii ñaari tànk la leen suñ borom defal defal leen ay laaf waaye amuñu ay loxo ñii suñ borom defal leen ñeenti tànk waaye amuñu ay loxo ñii suñ borom def leen ñu am tànk yu baree bari waaye taxul ba tey ñu am ay loxo ñii suñ borom defal leen far amuñu sax ay tànk ci suuf rek la ñuy battu noonu di dem ñu sax ay tànk amuñu ay loxo doomu aadama suñ borom moom defal ko ay tànk defal ko ay loxo mu wuuteeg lépp. naka noonu tamit bu ñu seetantal dañu gis ne doomu aadama tamit ni ko suñ borom jiitalee nga xamante ne daf koo bind siggil ko mu jëm kaw bàyyi ma yëpp rek suñ borom def leen a sëgal doomu aadama nag moom dafa siggi na kocc jóg taxaw siggi jëm kaw te position bu mu bëgg a def rek def ko waaye mën a siggi jëm kaw te bàyyi ma yi melu ñoom noonu waaye suñ borom ubbi ay noppam muy dégg di xàmmee nga xam ne lu mu xam lu mu dégg rek da ciy am ak ràññee te loolu lépp di delluwaat rek ci xelum doomu aadama ndax fi ne boo doon diglu dara sax te bàyyiwoo ci xel nii mën ngaa bañ a xam dëgg-dëgg li liy yëngutu lu mu doon waaye boo ne tekk te ak sam xel da daal di xam da nga daal di am ràññee lool gis xel ba léegi fi mu ubbi ko da nga suñu borom dafa ubbi dafa ubbi aadama ci xel ci bépp kote ubbi na ko ci nopp bu déggee xam li muy dégg am ca ràññee bu baax naka noonu tamit mu ubbi ko ciy bët muy gis di xàmmee li muy gis lépp muy couleur yeeg yëpp rek ndax bàyyi ma yi amuñu loolu bàyyi ma yi ñoom riir dañuy dégg rek lii riir maanaam wax nañ ne bàyyi ma yi mboolem yi nga xamante ni dañ koy dégg am riir rek lay doon si ñoom doomu aadama suñu borom ubbil ko ay bëtam muy muy gis di xàmmee couleur yi bu gisee couleur bu bu ñuul xam ne dafa ñuul bu gisee bu weex xam ne dafa weex bu gisee jaune xam bu xam bu gisee blanc xam bu gisee bu la bu gis rouge lu mu gis daal xam ne couleur bi couleur sàngam la bàyyi ma yi nag meluñu noonu bàyyi ma yi am na ci ñoo xamante ni bi àdduna bi yëpp ñoom sonn rek lañ ci gis lu beneen nag yi ak yooyu ndax nañ ne lépp luñ seen rek ñoom sonn lay doon si ñoom doon ko ñax mi ñuy dunda yow yaa ngi seen lépp verte ñoom sonn la ñuy gis naka noonu ñeneen yeneen yi ci des lu ne xaj yeeg yi ci des duñ gis lu ruus buñ gisee couleur ruus meuf la ñuy gis doomu aadama moom am xàmmee yëpp rek ràññee googu ndax ndaxte bàyyi ma moom gis du am bàyyi ma couleur yëpp ñoom duñ ko gis dafa am couleur bu ñuy gis ak yun dul gis nga gis ni suñ borom ubbee moom aadama couleur yëpp rek mu man koo gis man koo xàmmee te bàyyi ma yi amuñu loolu naka noonu tamit mu ubbil ko gémmiñam bu mosee xam ni dafa tàng xam ni dafa sedd xam lii dafa saf suukar wala dafa saf xorom wala dafa saf kaani loolu lépp di ak ràññee waaye lépp rek nga gis ne day daal di delluwaat ci xelum doomu aadama naka noonu mu ubbil ay bakkanam tamit lépp lu ko xeeñ rek mu xam lii parfum la ba ci xetu togg sax bu ko xeeñi mu xam lii togg la ba ci xet yi togg yi sax da koy xàmmee xam ne lii togg sàngam la waaye loolu lépp di ak ubbi goo xam ne suñ borom daf koo ubbi doomu aadama te bàyyi ma yi meluñu noonu ndax doomu aadama suñu borom may na ko mu ne dégg ci kaw suuf si suuf si duju ci moom lépp duju ci moom lépp lu muy séen rek di ko di ko séen nam nam nam tegee mun a fa tegg te suuf si di daw aleer bu bari te taxul mu yëg si dara waaye bàyyi ma yi tamit am ci ñoo xamante ne sax àdduna bi yëpp ñoom dañu gis muy rëlante rek nga ne mii àdduna bi dañ koy seen muy ralante duñu du du toog nii ci benn place ba tax na sax boo tëboon te bëgg leen a jàpp nii tey mënoo leen a jàpp ndax da ngay yeex lool si ñoom lu mel ne muus yeeg janax yeeg xeet yu mel ni noonu yëpp rek loo ci tëb bëggoon koo jàpp mu ne pour nga jàpp ko yombul boo ko béttu pour nga jàpp ko yombul ndax booy ñëw da ngay yeex si moom doomu aadama suñ borom moom defal ko lépp na dégg na xam ne moom bu doon ubbi ko ubbi googu la ko suñ borom ubbi àdduna bi mën na yëngu ci moom ba day bay miir ba moom da sax du mën a du du ca mën a am genn ràññee faf waaye doomu aadama suñ borom ubbi ko lépp na dégg ci moom nga gis suñ borom ni mu fonkee foofu doomu aadama waaye danga fi gis na tamit ni mu ko defee muy xalifaam da koo waajal doomu aadama ci boppam suñ borom daf koo waajal ci lépp ndax mboolem loo xamante ne bii rek luy dund mi ngi ko nekk ci kaw suuf di dund suñ borom da ko caa may cir boo xamante ne bii mayu ko ci mayu ko ci kenn te lépp rek da ngay gis ne day delluwaat ci xelum doomu aadama. ndax fi mu ne bu fekkonte ne da ngay xool dara tax li ngay xool sax sa xel tegoo ko ci mën ngaa bañ a xam dëgg dëgg la ngay xool léeg-léeg nga xool dara wala ñuy wax dara nga ne ah bàyyiwuma ci woon xel ba nga xam ne yow doo ci am ak xamee doo ci am ak ràññee doomu aadama ak ràññee ma xel ak ak xamam dafa génn ci moom ci côté bu nekk rek ci bépp fànn mbir mépp mu nekk rek da ngay gis ne ràññee googu da ciy nekk doomu aadama nekk koo xamante ne bii suñ borom daf koo fonk bëgg ko ba tax mu jël ko teg ko fii ci kaw ci àdduna bi mu nekkal ko fi mu nekkal fi suñ borom di lijjanti mbir yi naka noonu mboolem li ma ko waxoon sànq rek wàllu yi yeeg yonante yi ñooñu ñëpp rek bi ñu ñëwee tëral seen sariya bi tëral bi ak aqiqa bi nga xamante ne ci la nit ñi di mën a jaar bi ci teg seen tànk ba mboolem bagage yi ci àdduna bi yëpp rek du leen tarxiis nga xamante ne mbir mu man di doon rek buñ ca àggee dafa fekk na ñoom tëral tëralal nañ leen mbir moom nañ cay doxe ak nañ cay jëfandikoo ba nga xamante ni bii danañ ca mën a dajee ngërëmul suñ borom waaye duñ ca dajeek ay lor loolu lépp rek suñ borom ci yërmandeem la ko def ci doomu aadama ndax bu bàyyi woon doomu aadama mu ñëw noonu rek te boolewu ko ñeneen yeneen jëmm yu mat sëkk yu xamante ni bii ñoo koy gindi bàyyi ko noonu ci kaw suus rek yëpp mën naa jaxasoo ci moom waaye da gis ne suñ borom daf ko organiser lépp lépp rek mbir mu si nekk rek nam ca war a taxawee suñ borom def ko ci mu mat sëkk mbir mu ñu nekk rek lam ca war a jëfee ak lam ca war a doxale suñ borom def xamal ko ko mu mat sëkk doomu aadama nekk koo xamante ne bii suñ borom daf koo fonk kawel ko ci mboolem yeneen yi ci des te foo seetantal jëm rek danga ko fee gis mu leer ñi ñun fonk suñ borom rek moo ñu war bëgg yàlla doomu aadama daal ndax dëgg yàlla objectif am ci àdduna toon lenn rek lu may bëgg yàlla kese rek ndax yàlla suñ borom subhaana wa taala dafa bëgg doomu aadama te mboolem wal eh, eh, eh, njiit yoy ma fi wax sank rek muy yonante yeeg wal yi nit yalla yoy yëpp rek na xamni ñoy khalifa yi luñ doon soñé lépp rek moy kennal suñ borom subhanahu wa taala bañ ko bokalé ak kenn waaw tay jëfi ndigalam di bàyyi ay tereem loolu kese kese rek mo doon seenu woote dépp ñi ñuy dégg ñëpp ñuy wax rek kaddu gogu rek lañuy dégg ñu diko ko muy baatub la ilaha illallah kon doomu adama bëgg yalla kese rek moko war ndax yalla dafa bëgg doomu adama ci mbir yépp rek mbir mu man di doon rek boo ci seetantalee ca saasa da ngay daal di gis suñ borom ci mbir moomu mu leer nañ waaye danga ci gis suñ borom tamit nam ci fonke doomu aadama ak nam ko ci berelu loxo kon sant yàlla rek moo ñu war fu ñu toll tamit ci xéewalam yi ndax xéewal yi bari na yaatu na te mënuñu koo lim te lépp rek suñ borom jël ko teg ko si loxoom doomu aadama xam naa ci seetantal bi ñu yem ci fii rek incha allah ba beneen yoon fii ci ëttu soxna yi baax yi di leen ñaan ngeen di aimé suñ pass di ko partagé asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.